bismillahi rahmaani rahim yéen bokki jullit yi yéen bokki taalibe yi sëriñ Fallou ne mi ngi leen di nuyu sëriñ bi nee na sëriñ Abo moom Cheikh Mouhamadou moom Cheikh Ahmad Bamba moo leen baaxe ngan gog pajuk aajo la ci jublu te indi na sëriñ Fallu nee na teew bi de moom nee rafet na nee na teraanga ji doy na li ci des mu faj suñuy déwéniti la sëriñ Fallu nee mi ngi nuyu mbooloo mi mépp nee di ko teg ci loxol sëñ Abo nga xam ne moo fi sëñ Muntaxa di sëriñ Fallu di sëriñ Touba nee nuyoo bi nag kër Cheikh Babacar Ndiaye ci Réal la jóge waaye mënta ñàkk a jaar ci sëriñ Daouda Ndiaye mii xalifaab Cheikh Babacar Ndiaye ci Réal gépp nag ak ak njabootam nee na mu jaarale ko ci loxool sëñ Moustapha mii di nuyoo léegi ak rakkam yi mu nekkal mi xëy yépp ñu teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxool sëñ Abo mu tegal na ko ci loxool xalif général de Mouride nee na sëriñ bi nee na walaayil asim li mu xam ci moom mu xam ko ci moom sëñ bi xam ko ci boppam bëgg noo dimbali rek ko tax a jóg nee na nag yàlla nañ ko xam nee sëriñ bi gépp a ngi nii nee teeru nañu la. nee fab nañu seen jëmm ak seen xel ak seen xol ak seen teraanga yépp indil ma te nee lépp ajo jooju nga ŋàbb jóge ko Touba indi ko fii ci Mekhe ci kër Cheikh Babacar Ndiaye ci mu nar a tasaaroo ci lambay gépp ak bawal gépp nee lépp teg nañ ci sama loxo na ngi sa jëmm ji rek tey jii Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane fu mu tëdd ak fa mu tëdd ak njabootam gépp bi nga dëgmalee dëkkam bii rek bàyyi ko sëñ Fallu ak Seex Rafaal ci diggante sëñ Muntaxa nee na moom bëgg mu tëdd yu baax yi mu àndal nee na nii nga nag sama jur wu tedd ñëpp kenn mënu koo ñàkk ku lamb ba daj ko am lépp ku ko dajut di ko daj di nga ko lamb ba daj ko boo gis aajo faju sëñ Fallu daal def nii ne Seex Babacar Jaay Kergaan moomu nag war na Sëriñ ne wër na Serigne Touba juróom-ñeenti at. ne dem dal ci sëñ kër Cheikh Boubacar Cissé bu ñaami la. am fa juróom-ñeenti at. ne am bu juróom-ñeenti at. ne Cheikh Boubacar Cissé ci juróom-ñeenteel bi at ba mu woo ko mu ñëw. ne mu ne Babacar yëg naa ne mm, mm, man du man may faj saajo. bu doon ab teen nga ne mu ne bu fekkee ne bi nga fi nekkee ak léegi nangul ma lépp su ma doon ab teen ma ne naan nga ma ba ma jeex nga ci nga ma léegi. waaye nag dinaa la digal. waaye la dellu lambaay. nga dellu lambaay. soo demee lambaay. soo demee lambaay. diir bu gàtt. diir bu gàtt. am na yoon wuy feeñ ci penku bi. am na lay jëkkee. ne. aw ñan lay niru. waaye lay mujj. waaye am ba àgg. yoon woowu. yoon woowu. ka nga fay fekk. ka nga fay fekk. lay tudd. ne lu topp ci Muhammadu lu ca tegee. kookay faj sa aajo. ne kooku moo mën a faj sa aajo ak waa Lambaay. mu del si bawal. ne mu del si bawal. toog ab diir. ne toog ab diir. ne ko baax ki yëngutu. ne mu jóge fii ci bawal. dem joxi ko boppam. dem joxi ko boppam. bam ko jubé né bam ko jubé dafa mu seigne touba dafa muñ né seigne touba muñam ko tedd ko da ko muñ fab kala gi tek ci gémmiñam ne ko cheikh babacar yow fo ko yow rek la ne limay wër lepp yow la ñu xaar mu ko ak singa mu ne ko ne yexi nga luy mu ne cheikh ko taxawal diina lamb mu ne ko taxawal l'islam ak diina ju rafet lambay mu ne ko dama ne ah ne ci génn ci génn toog ne génn toog ne ko jubóo naa ci sa borom ne loolu nga ma doon diis ne jubóo naa ci sa borom waaye bala ma la ko defal nag ne waaye bala ma la koo defal nag dinaa la wax ni mu mel ne dinaa la wax ni mu mel ko ni mu mel de mi ngi mel ni yow mu dem ne mi ngi mel ni li nga may sant te ma jubóo ci sa borom léegi ndax sa pas-pas mi ngi mel ni nga dem ci digg géej gi nga bëgg faa taal ab taal nga bëgg faa taal ab taal waaye suñu borom nangul na ko waaye nag li muy jafe-jafe nag suñu borom nangul na ko ndax sa pas-pas mu jox ko boppam ne mu jox ko boppam départ ñëw Lambaay. départ ñëw ba mu yëg si Lambaay. ne juróom-ñaar fukki góor yàlla jébbalu na ci moom. loolu sama maam ko def fii ci Bawol. ne loolu sama maam ko def fii defal ko sunu maam Cheikh Babacar Gaye ci daan ci Bawol. ne kon sëriñ bi ñoo lay sant bu baax. di la gërëm di la gërëm. yaa sa rakk yi nga àndal ak donga yi di la ñaanal saw fan gudd. lool ba mu soob rek ba mu soob la rek. yàlla na yeex nag. yàlla na yàgg lool. ne yàlla na fi yàgg lool tànd ak wér di sant sama yu bax yi nga xam ñom ah, la andal liggéey bi né di sant magam yu bax yi nga xamé ne ñom la andal liggéey bi sama rek yu bax yi ma andal liggéey né ak rakkam yu baax yi yépp andal liggéey bi ngi di la ne di la ñaanal bax yalla gën guddal saw fan kon sonu nooy xolam sedd na guuy jëf kéro la kalaame ba ngir ba ko fay ba ndandu joy mona ko tuubi roobi se baba sëriñ ne sëriñ Ali ko Cheikh Raw sori na Cheikh Fallou Mbacké namp yaari weeni ngor Mbacké bu soobe duñ ko jar Alaaji Fallou Mbacké ke moom amul ci xarnu bi wallu leen di wallu yaari maamam Serigne Fallou ndaya may baayam baaya may ndi jaayam xalifa nday ja day bawam bu soobe Abo ngir ñoomi sërif lanu faw xanan doro ñor serigne Fallu Mbàkke ma toog gësam sëgal tafar jasaakalaaw alhaji Fallu Mbàkke moy tal bu yalla taal na ka jor ñi nan Bawal ku ta fay man duma fay jasaakalaaw bay serigne abo serigne Ibra malay zamam maam Seex Bambaay sa maam takat gaynde du jur luy mem ba ñu naa ko mbode sëriñ man ma di sepp géwél ma way la man jang na la gont na la kañ la ñi bax ci rew mi serigne abo ñi nga bokal Mbàkke bu ñi sante Fall rew mi sargal kun woo mu ñëw kun yónni kooka day daw kun xas gërëm fu mu toll barke bay law Seex Ibra Faal sa maam damel xëy tala sukaabe fatim benn damel de jeefu njóog ak damel sàmba yaaya ku sopp sëriñ aboo mbàkke ne ñu màggal jàmbaar ji man xamee naa man ràññee naa sëriñ bi ak sëriñ si kenn dootuma nax man sëriñ aboo mbàkke yow laa jàpp kenn duma nax bëy wu nekk am na déem gu muy fore sëriñ aboo mbàkke man yoway sama déem gi ngay fore foo nekku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 bokki julli yi fi teew yëpp bokki taalibe yi sëriñ Fadilou Ndiaye ñu ngi leen nuyu ci turu sëriñ Abul Baraka ak ñi mu àndal ñëpp muy Cheikh Mourou Mourtada rakam si wut xabaar ñu teew ñu àndal ñëpp njaboot ji ñu ñu jël bi tedd boobu di ko sa loxo nga teewoo jot ko ci njabootu sëriñ Babacar Ndiaye te ñu fedd li kóllëre ak loo xam ne luy fekkoon muy dox rek ñëw di ko gën a yeesalaat xam ne fii lii tax ñëw fii jeex si xandal Sëriñ Tuubaa rek ak déclaration Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne mos a génn moo tax sëñ bi bàyyi lépp ñëw Tuubaa am fi ñaari fan ngir li xam ne maam defoon na ko fii mu Seexul Xadiim defe ko seen maam ju baax jooju nga xam ne moo tax ñëw fi tey jii ngir taal bi nga xam ne Sëriñ taal na ko fi ñu fenqil ak gili yi taalaat ko taal bi gën a yànj ndax sa maam ji baax jëlaat sewoon ak maamam ji sa way juróom sa way juróom moom nga ci moom lii di nga doon réew mi dox doxalin ko nii taalibe goo xam ne dafa ànd yar ak teggin benn baat rek dina njëkk dina tëral suñu ko seetlu guy kii nag sëñ Babacar Ndiaye ca gaan sëñ Tuubaa ko tàlloon mu jur sëñ màjju sëñ màjju jafaraat ko yëkkatiwaat ko ba ñëpp jëkk ko sëñ Fallou Ndiaye mii sëñ Ndiaye des mbiram yëkkati ko taal ko moom mbokkam yëpp àndal fii ñu fii fii ñu fi def saa déwén bu bu kenn manque ci réew bi fi na la manque ko yàlla jël ci jën yéeg nag ya xar ya béy yi te yu ñu ko yàlla meññeen mi ma gis fii bi màggee na ma suñ too de yokk na ma li sam dana yokk démb rek yabal nga ma ci jàkk ji woon tuddi ñu woon fii te loola luy rëy ci ñun la ndax yaa doon teew sa bopp gàllankoor ak ak coore gi sonn moo tax ñu ñoom teewal te mu nekk nañ waaye mënuñu faa wut waaye gis nañ fa loo xam ne mbàkkee suñ too am ndam daal li gën a wett mooy am ndam suñ too am ndam am na ndam ci bawol yéen ci am ñu ngi lay sayaar baax di sant si bokk yi nekk yëpp di sant si bokk yi nekk yëpp tey ñaar ñu teew fi bari bari bi yàgg ko jiite ngeen yàgg ko àggal yéen tamit ngeen ñaanal ko yàlla li mu yéene ci sëñ ko ci kër Cheikh Modou Fadal ko maa ngi ko sàkku ci ñëpp lam yi lam yëpp kenn ku nekk la lam yi wala yàlla def ci barke lami yi wala eh, gëm na sëñ Tuubaa bëgg na ñu ngi ñaan ngeen kenn ku tudd si làmmiñ yàlla si Aboubacar bi sëñ Falil yàlla fi yàgg ti wér yàlla am ngërëm sëñ Tuubaa ndax yow li nga tiseel sën ak prise la sën ak prise bi nga waxee mooy asib asibto siyaada loolu mooy sënu sëñ Tuubaa la sënu Cheikh Ibra Fall la te yow murid bii kat képp ku jëriñ ci ak taalibe nga tax jëriñ ci taalibe ndax moo xam nu ñuy war a toog sëñ Tuubaa moo wane nu ñuy jëfee sëñ Tuubaa moo ne ab sëñ day toog ci kaw nga toog suuf ab sëñ doo doo doo bokk moom doo bokkante moom lépp maam Cheikh Ibra Fall moo ko kon moom am na ñaari ngërëm ngërëmu Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne moom ñun ñëpp mooy sàkku si waaye ngërëm maam li nga xamante ni moo moo moo moo moo moo tax ñëpp doon ay kon ñu ngi leen ñaan yéen ñëpp ko yàlla dimbali ko te bàyyi ko fi yàgg-yàgg te am na ko wér di sant rek santam bu baax boobu nga xam ne seen jëwriñ la te nekk fii ci moom di léppam muy léppam monsieur Moussa moom sëñ Mbàkke Mohamed ñu ngi ko ñaan baax yàlla bàyyi ko fi te wéral ko ab xaritam la sëtam la léppam la kon loolu mi ko seere mbooloo bépp fii nag moom Sëñ Tuubaa amu ñaari ker amu ñaari ber garab gi genn la ay bànqaas rek fi nekk waaye daat garab gi mooy Sëñ Tuubaa waaye yéen de xam nañ ne yéen ay saadex ngeen saadex nag mooy yéen day jikko sunguf sunguf ku laamu nooy du xam ko ko ak kon sëñ bi nee na bu nappee ci loolu mi ne ngeen dénk ngeen gën a góorgóor lu baax fekk ne sax ngeen nekk ci waaye li leen booleeg moom te boole leen Sëñ Tuubaa mooy lislaam képp moo ne boole Sëñ Tuubaa te gis na nga ndax juwaay yaa ngi nii jàkk yaa ngi nii euh, daara yaa loolu mooy mooy doon bëgg-bëgg Sëñ Tuubaa woote bi lu yaatu yaatu nee na sëñ bi wootiwul lenn lu way kaay la def lu yàlla digal bàyyi du yàlla teel rek te gis na ko ci yéen kon mi ngi ñaan ngeen gën cee góorgóorlu gën cee nampatal ndaw yi te gën leen xiirtal ci ak taalibe ak taalibe nag mooy mooy mooy lislaam rek yàqu-yàqu jamono yi bari na waaye neen yàlla bu asif yi nee na yàlla ngeen ko wàll réew mépp ba nii ngeen na soow nekk benn nekk ay taalibe nekk ñoo xam ne jël ngeen seen lépp def ko sëñ Tuubaa ko yàlla saxal euh, wisaab ci réew ba jikko yëpp rafet jikko yu baax ndax nee na yàqu yàqu dañuy wax na crise économie waaye gis morale moo fi gën a bari jikko yi moo yàqu ñu bari bari amatuñ jikko yi rafet seetuñ dara waaye fii ku dikk xam ne Sëriñ Tuubaa dellu ginnaaw moom ku dikk xam ne Sëriñ Tuubaa dellu ginnaaw ndax njaboot gi mu gis rek xam nañ bi màggee ëllëg lépp dana baax te aw ngeen ci yoon woowee seen bàyyi aw nañ ci ngeen aw ci yéen seen doom yi kon yàlla ngeen fekk seen njëriñ leen tam njaboot gi ci yàlla bu seetaane am yoon li ma waxoon lépp mënu ma ko ndax bett wax mu waxal ndax sama làmmi li may xawma ko waaye nag sama yéene ak fee pas-pas laa laa kii rek li ma bëgg daal tey yii na sëñ bi na leen xool ba tamit ba tey yërmande yi rek da tekki weer bi yuli yi nañ jàkk yi ñëpp bu xool si aju faju waaye yéen tamit ngeen xool ko xool ko xoolab xool xoolab piis ak paq-paqal ak xool xool bàkkee rek ndànk ci moom ndànk day xool ndànk ndax ba di métti sax ba di ñëpp ñu xool mu xool ñu su aaj yëpp da faju ndax umu kat du lampal doom yi du xool day xool bu suur sëñ tuwaa gën a gaaw umu nag ndax u moom balaas bu nekk rek Sëriñ Tuubaa nag moom bëtë bi daa war adduna ñu ñëpp seen maam yi bu digee Sëriñ Tuubaa xool rek moo tax seen aajo fajo ndax Sëriñ Tuubaa jox ko kenn maam ab galen wala jox ko saafara jox ko jox ko téere da da xool dama aajo faju lu jógee ci loolee aajo aajo loolee a gaaw lu fi Sëriñ Tuubaa dekkoon dama a bees tey la gën a baax kenn ku ñun ñii lu fi sama nekk wala sama am ji nekk li sama am li nga mën tey ji kon loolu Sëriñ Tuubaa xam ne kon gën a gën a mukk ci àdduna nañ fas yéene nekk ay taalibe tàmbali sëriñ bi jëm sëriñ bi suñu lepp moy sëñ Tuubaa sëñ ab murid nag gis day gën na nga jamm yalla ñep gën nga top ndigal gën nga baye téré lepp yalla téré nga gis ñu téré lu yalla digal nek lool moy mooy murid di càggee na xat xaat du wax ju bari du jëf du jëf murid jëf ju neew jëf ju bari doon ak wax ju neew kon lool lool mo dem suñu bi mi koy fàttali di fàttali bopam kay ñaan suñu borom dimbalé ñep réew mi nay yi xamni ay bekkal la ay bekkal ñi ñu ay commerçant le le maamu sëñ Tuubaa ñaan lo bekkal ñaan ko sa mi ko ñaan waccaxal di ahli sarxi wa tiyara aanata aw yoxtawa bustaana yàlla yàlla nga def béykat yi ak ñi yaxantu ci biti yeeg conteneur yi ay nangam nangam yëpp yàlla defal leen ndimbal kon ndimbal rek amat ñaan ndax Sëñ Abdou Khadre daan wax ne xamul jàmbaar kuñ dimbal lañ xam kon sëñ bi yàlla yàlla ñëpp defal leen saxatu daaree ni kon sëñ baa ngi noonu ñu ba déwén jàmm yàlla ko tey yu bari kenn dañu fa manqué euh, feeg bu fi dee soit ñi béy itam na yàlla defal jàmm nawet bi ñëwaat yàlla ko yàlla barkeel te ñu wàññi njàmbat yi solo kenn ku nekk rek am nga loo xam ne tey boo xoolee sa ginnaaw rek da nga war sant yàlla waaye lu jóge jàmbat ko baaxul ab julli ko def réew yi bu xool réew yi ñu wër musiba yi nekk ak balaa yi xam nañ ne am na ku proté si loolu kon nañ nañ sant yàlla tey tey tey góorgóorlu ci digal yi bàyyi cer yi bu ko defee dugg nañ ci fii euh, fees di glace sam nañ ma yàlla eh, isal ma dina jàmm ma xam fii si sam nañ maa dañ dugg foofu yàlla suñ tuwi defal jàmm si mi ngi sant ci takk der yi nga xam ne bàyyi ko ci administration bi ñëw taxawul liggéey bi xam ne ba feraxatu yàlla si mi neen mi ngi kenn ko ne ci yéen euh, garab ba ngay yóotu yàlla nga ko jot te yàlla musal leen te dimb leen kon ñu ngi sant góor di sant jigéen sant euh, njaboot si Babacar Ndiaye gépp ak njaboot gi fi teew yëpp tey ñaan suñu borom subhanahu wa taala euh, tàbbal kii te ñaan suñu Muntaxa yàlla yàggal ko fi ndax fu mu jëm moom mii bala ma dem da ko tàggu bu ñëw da leen ñëw na ndax daa am kilifa nit ki bu amee kilifa neex a àndal kon ñi ñi seere ñun ñi xam ne bokk day taalibeem te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 toog bu taxaw sëggal ci sa kanam sëñ ak sëñ bi ne la sëñ ak wala yow xool naa jàpp si fan ngeen si mbéy mi ne leen xool jàpp si rajo xay bisimilah bisimilah